ndax Balla Gaye dina lay ñëw ndax Balla Gaye dina lay ñëw ndax Balla Gaye dina lay génn Balla Gaye 2 wàcc na waaye le fils de Double Less de Triple Less Balla Gaye 2 wàcc na Balla Gaye 2 ngi noonu l'arrivée de Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 bi def rouge bi ci kaw Balla Gaye 2 ak waa bi ñu ngi saafonte waaye ba mu jugee ca INSEP yàggul indaale forme bu doy waar digganteem ak Tapha waaye tey lamb ji ko fi indi mooy diggante Sa ak ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène ay eh waaye reetaan bi reetaanu Balla Gaye 2 bi lañ namoon Balla Gaye 2 confiant ay eh waaye Balla Gaye 2 bi forme bi mu indi dafay jàpp dafa maa fàttali forme bi mu indi woon 2010 2011 Balla Gaye 2 très confiant Balla Gaye 2 mu jàpp confiance laa gis jamono ji Balla lu ko sëriñ yi dee Balla ndax li ëmma seen wala ndax li ëmma seen indi da koo doyul li mu sol saa Cees yi entraînement xanaa da koo doy Balla xel mi dal na de Balla Gaye 2 ñëw ba kat bàyyi muy doog a yegg si Balla Gaye 2 mi victoire lañ ko dee ci Baye Sidi mais ambiance may dégg neex na de xale yaa ngi yëngal laata Sa Thiès di génn waaye Serigne saa ngi toog di jàpp di ñaan ci pomme ak banaana yi nga xamante ni mu ko tiim mënoon naa ñëw rek saraxe ko waaye mu ngi koy jàpp de mu ngi koy léem ay waay lii kuñ ko sarax baa di ko lekk gis naa ci kuñ saraf ko mag banaan biir bi daw ee eh, kaa yaa ngi ci ginnaaw di ko yëngal balaa Sa Thiès di sarax yaa ngi mel ni tulleeg man le xale yaa ngi ay rang ay waa rang boobu rangu tikki la wala rangu sarax la xale dañuy dank di leen jox ñuy dem sarax la buñ dankee jox la rek demal di ginnaaw acca laa ilaaha illallaah waaye lii Sa Thiès rek ko mën a wala sëriñ ci suuf la toog faranku laay mi ngi mel ni kuy jaay banaana yi waaye koy saraxe lu lee muy yàgg yàgg yàgg ci saraxe lay laa ilaaha oh. waaye boolu nak la la saa ay pièces la indi ay pièces ay boolu dërëm tey làmb cosaan la xale yi dañ leen di rangloo xale yi dañ leen di rangloo di leen jox par pièce xale buñ jox nga ñaan dem xale buñ jox nga ñaan daal di dem oh ah. sengoor gi ay waay gars yi jëlal sa jëlal sengoor gi mu yor buum gi gi gars yaa ngi koy jàpp baa du dagg ay waay sengoor gaa ngi mel ni ñoor gars yi lu ñuy waxtaane noonu da ngay diri seen war gi jëmale ko ci pot ginaar gi ay ginaar gi baadu dee ginaar gi baadu dee ginaar gaa ngi lappi lappi rek allahu akbar oho ay waay lambi Sa gi lambi Sa Thiès gi revanche Balla Gaye bi ay waay neex neex ba ngeen fàtte ne ci ginnaaw lañ koy tëggee de jaaxal na ma bal bi waaye bal bi Sa Thiès baadu bal bi la indi woon keroog ca face à ba baadu Sa Thiès bal bi la indi woon keroog tël du nawetaan du pul tiro bi